baccalauréat 2020 tàmbali nañ ko ci àllarba ji yamook ñaari fan ci weeru septembre 2020 jury 1163 moom moo nekkee ci lycée bu Ross Béthio te it ka ko jiite di monsieur Sarr waaye nag moom moomee ci ay kàddoom muy xamle rek nii jot nanoo yéex a tàmbali tuuti te la ko waral moom moo di benn benn taw yi nga xamante ne jotoon na def touti jafé jafé ci benn salle de classe bo xamante waron nañ fa examen. bisu tay bi bis particulier le parce que euh, dañuy commencer examen bi examen baccalauréat bi candidat euh, centre bi centre bu bu reuy la parce que yor nañu ñenti téeméer ak fukk ak juroom benn candidat ñu répartir leen ci ñetti euh, série série SDB. bi. yor nañu nyar ñaar jurum ben ben jurum ak kandida ñaar candidat série L2 bi yor nañ ñaar témèr ak euh, ñeen fuk ak ñaari candidat série L prime 1 bi mom mo yor témèr ak euh, fanwer ak juróom ñaari candidat lepp boko bolé mu ñenti témèr ak fuk ak juróom ben candidat Euh, candidats yi ñëw nañ am nañ ay absant absent yi nag euh, série S bi am nañ ñaari absent série L2 bi am nañ fukki ak ñaari absent euh, série L bi am nañ ñetti absent boo dajalee ñi absenté yëpp yi nga xam ne ñëwuñu ñi ngi nekk ci fukk ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari candidat ñoo fi nekkul mhm. kon fi mu toll nii ñiy composé ñeenti téeméer la yu manque benn ñoo ñoo nekk di saali di di di composé. ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ndongo yi ñoom yooyu nañu yàbbi ci mbir moomu te it di xamle ni ba fi ñu tollagum nii épreuve yi moom gisaguñ ci jafe-jafe yu leen xaw a jaaxal. Euh, sant yàlla rek dina yàlla maye ñu dund ba fekk si suñu examen bi di yàlla mbooloom candidat yàlla mooti leen ñuy commencé examen bi si jàmm incha allah mais épreuve moom euh, abordable épreuve yi gis nañ ko li jot a jàll moom vraiment kuy def examen moom da ngay am yaakaar da ngay am yaakaar rek

parce que comme que am mbooloo mu toll nonu ñoy ñëw fi il faut mu am organisation bu baax euh, chef d'établissement bi ak équipe bi taxaw nañ ci ti entrée bi xalé bu ñëw da nga yor sa masque euh, té tamit da nga raxasu bala ngay jàll euh, surveillant yi tamit même chose la donc danañ raxasu danañ yor masque am nañ fi ay masque pour xalé yi nga xamné parfois dañuy faté parce que mu am au lieu ñu leen di dàq ñu ñibbi seen kër ak dañ leen di jox masque te wax leen nag bu bu mu leen dalati parce que booy jóge sa kër euh, masque beeg convocation bi ak sa carte d'identité loolu moom war a ko fàtte donc boo dem examen fi mu nekk nii loolu nga war a war a jiital ci sa saak. waaw mesure barrière yi moom macha allah ñëpp ñun ñëpp respecté nañ ko mais classe xaw na tooy tuuti mais sant yàlla rek demaat nañu épreuve si jàmm yooyu euh, ñu ngi koy def euh, comme niñ ko waxee. waaw parce que ku nekk respecté nga say mesure say euh, liñ la wax mhm. respecté nga liñ la wax mhm. waaw vraiment gis nañu table ban yi am nañu séparation entre nous waaw ku nekk euh, encore boo toogee dañ la ne comme par exemple élève bi bu toogee côté bi yow da ngay orienté wu nekk beneen côté bi exactement jël nañ mesure de prévention yaa yoo xam te leer na sa masque doo ko dindi mhm. waaw doo ko dindi xanaa nga génn si biti dem au toilettes nga dindiwaale ko si yoon bi mais en boo nekkee ci biir classe moom doo ko dindi quand mhm. waaw da ngay ànd ak sa masque te booy dugg aussi da ngay euh, da ngay raxas say loxo. Euh, personnel bi tamit euh, surveillant yi ñëw nañ surveillant yi ñëw nañ salle bu ci nekk am na ñaari surveillant lu mu gën a néew yenn salle yi sax am na ñetti surveillant secrétariat bi ñëpp a ngi fi censeur bi ak proviseur bi ñu ngi fi. service d'or bi tamit ñi ngi fi parce que gendarme yi depuis tout suba ñi ngi fi ñew nañ tel egg si fii toog waaw ay nawet mom école Sénégal ñu xam nañ école yi ñu mel donc toujours parfois école yi ci bari dafa am yenn salle yo xamne dana sen euh, am salle yu sen nak waye comme que taw bi taxaw na biñu latane commencé donc am na retard parce que euh, yenn tablement yi dafa xawona toy mu pose ñu quelques problèmes ñu mais nettoyer nañ ko défar ko ba candidat yi mën ci toog composé nga improvisé ñoo ñu ngi xaar rek peut être mu xaw facile tuuti peut être pourquoi pas abordable yàlla may ñu wàllum candidat yi dina